asalaamaaleykum mbokki xarit yi seetaan ñu leen di jaajëfal di leen dalal jàmm fii ci seen biir télé Mauritanie si jotaay yu ñu seq ak yenn saa su ne tey nag ma am mbégte ak kontaante di dalal euh, kii di Abdoulaye euh, xaas Khass euh, nekk nag fa tubaarkalla macha allah fajkat bu mag daanaka mën naa ne yéen ñiy seetaan télé bi ñu bari si yéen miin nañu jëmm ji wala miin nañu tur bi. waaye nag euh, kon comme que tungu ñu du teew rek ñuy nataal dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen ñu ñëw nag ci suñu waxtaanu bës bi tey nag ku ko dalal moom rek war ngaa war ngaa yi war ngeen jot li nga xamante ni rek moom moo war a jub ci waxtaan bi maanaam wàllum faj feebar yi nga xamante ne ni moom moo di sonal nit ñi rawatina ak lii di wàllum ay rab ak ay àndandoo ay jinne ku ne ak la koy woowee cat ak làmmiñ ak yooyu yëpp ñu fas yéene ci waxtaane bu ne naka lay feeñee ci nit ak bu feeñee ci nit lan la war a moytandiku ak naka la war a mën a fajo sëñ bi nuyu nag la. maa ngi lay fay di kontaan macha allah di profité di nuyu mbokku Mauritanie yëpp. Mm-hmm. di leen baal ak leen baal di ñaan mm-hmm. suñu borom réew yàlla fi jàmm. amiin yàlla dolli ñu sutura. amiin amiin di la ci li ñuy laaj. jërëjëf euh, si sëñ bi Abdoulaye Diop euh, mm-hmm. xaas pour ñu la xamul. kan mooy xaas xaas donc daara la tradipraticien la <laughs> identité xaas daal. xaas benn taalibe la boo xam ni suñu borom moo ko dénk. maanaam loolu ñuy woowee pajum cosaan en plus it loolu ñuy woowee it ñaan yàlla xam nga ñaar dafa am te nit ñi dañ koy dendale te dafa wute wàllum paj ak wàllum ñaan yàlla dafa bokk ñaar yu bokk mais wute na tuuti maanaam xas nag jëmm la boo xam ne suñu boroom loolu la ko defal yàlla dogal it ñu jóge suñu dëkk di Sénégal defi ko dëkk jàmbur ko xam li may faral di wax rek ku xam président Yaya Jammeh xam ko ci ku bëgg ñaan ku bëgg aussi it euh, wàllu paj cosaan parce que man damay wax ni avant cosaan la woon mag ñi daan nañu faju par exemple ci seen i jamono hôpital amul woon tey par exemple yàlla may leen sirru may leen baatin ci wàllu garab cosaan bu ñu demee xam ni garab bii boo ko jëlee jox xale lii lii war koo dal ci tawat dana ko dana ci mucc yooyu sunu borom nag dimbali ñu ci parce que mm-hmm. xam-xam li may faral di wax mooy maanaam jagleb yàlla mu ci ëpp doole parce que bu dee lu nit dem di wuti bis bu ne nga gis nit sonn ci te bu ñëwee def ci du ci sotti waaye bu dee ci suñu borom dimbalee nag daanaka loolu laal rek yàlla da ci teg loxo baatu xaas bi looloo ko waral macha allah d'accord kon loolu moo indi xaas. Mm-hmm. moom moo indi xaas bi. Mm-hmm. xaas jàng na alxuraan wala. waaw xam nga boo xoolee li ci ëpp. Mm-hmm. ci sunu paj. dañuy ci alxuraan di faj. macha allah lu ci ëpp parce que man damay faral di wax ni. nit ki lu mu jaar ci sens contraire bu ci jaaree ci contraire yàlla da koy dimbali ça veut dire de xam-xam bu ñuul man parce que damay wax ni lépp lu xam-xam bu ñuul di def tey suñu borom bu ne lépp ngi ci alquran da ngay tënku ni kon yaa xamul waaye lépp loo ci bëgg a def mën nga ko cee def daanaka ñun suñu lu ci ëpp ci loolu la ñuy faral di yëngoo ak it garab sunguf reen lépp lañ ci yëngoo si d'accord euh, sunguf reen boobu li nga wax nga ne jagle ni mm. may yàlla ni mm. naka danga ko dem jàng tarbiyu dafa am ku la jox xam-xam bi naka la demee waaw ah, comme ñun sunu maam yàlla dafa dogaloon man sama ñaari maam yëpp ku ci nekk yàlla may na ko ci wàllu faj mm-hmm. waaye tey euh, xam nga boo xoolee di nga jis sa doom par exemple nga xam ni kii yaa ko jur mm-hmm. mu xam ci mbir loo xam ne yoo xamu ko loolu da koy jàppee jagleb yàlla par exemple mm-hmm. exemple bi ma la ci jox man ngaa tëdd ak sa doom mu gént dara xëy ni la lii laa gént nga gis mu am kan moo ko wan loolu. Mhm, yàlla mhm. nga gis nga jurit aussi sa doom. tey nga laal boobu ba léegi dóor tourné sa bopp commencé métti. Mhm. parce que am na lu la sunu borom di woon ci signe ni kii doo nekkee yaa ko jur mais xam na loo xam ni. xamoo ko garab dafa nekk loo xam ni suñu borom moo ko saxal. par exemple te euh, boo gisee par exemple ñuy ci sunguf des fois ñuy wax ni moo gën a gaaw. day mbir moo xam ne man li ma koy faral xam naa pour toj ko fii dina xew a compliqué mais dama la ci cofal tuuti mhm. parce que amul benn garab boo gis mu taxaw ci kaw suuf te àndul ak turu yàlla par léegi nag ci turu yàlla boobu moo waral tey par exemple nit ki bu ko jëlee jëfandikoo ko naan ko wér kon da ngay jàpp ni ci kàttanu yàlla la fajoo garab boo gis nag parce que tey bu lee bu dee comme ci ñun garab yi ñuy fajee rab mhm. parce que dañuy découvrir xam ni garab bii jinne bu nekkee xale fii lay dëkk mais bu màggee da koy ragal léegi ñun même garab boobu da ngay gis tey bu buñ ko tegoon fii boo amee rab boo ko duggee da ngay commencé yuuxu parce que du ko ñime te pourtant buy nekk xale ci lay dëkk te nit ñaa ngi koy romb loolu mooy xam-xam lenn li gëstu lay doon lenn li jagleef yàlla lenn li nag sa yëf yi bopp lay doon mooy li làqu daal mhm. donc euh, euh, ñëw nañ ci wàllum xam-xam bi mhm. léegi nag gis nañ ni ñu bari dañ naan rab rab moo leen jàpp jigéen su mhm. su melee ni mu war a mel mhm. war a sëy sëyul mhm. ñu ni rab ko jàpp ñu jigéen bu sëy war a am amul doom ñu ni rab la jigéen buy sëy di tas ñu ni rab la góor buy takk jabar di kii ñu ni ñu rab la est-ce que la jiiñ tamit yëpp rab tamit euh, ëppul est-ce que rab tamit weexul dunk rek ba lu ñu yëkkati rek xëpp fa ko waaw li tax weexul dunk mooy tey dañu wax ni bu nit bu ñu tegoon nit ñi ñu wër ñu teg jinne yi dinañ wër nit ñi ndax ñoom ñoo leen ëpp kon da ngay gëm ni par exemple ñoom dem nañ ba amatuñ dëkk waaye ci nit ñi lañ dëkk mm. kon nag leen di d'accordal loolu mm. léegi nag li li tax tafu gi mu tafu ñun ça veut dire loolu par force la léegi nag bu njëkk mag ñi fexe woon nañu ba kër gu ñuy dëkk ñu ne ah fii am na dara lu fi ne ñu tuxal loolu mu dem mais déedéet léegi yow da ngay ñëw dëkk ci kër gi dëkk ak ñoom sa njaboot ku ci juddu kenn topp yaay ja ëmb mu jàpp parce que bëri na ci ñoo xam ne tey par exemple ci seen biir ëmb la rab bi jàppee doom bi leen jur même da ngay gis parce que boo xoolee misaal yi par exemple kii tëdd dugg ci biir mbaajam tëdd gént di nekk ak beneen góor bu dul jëkkëram kooku loo gàtt gàtt xam-xam war ngaa xam ne kon am na loo xam ni par exemple mu ngi mu ngi exister nekk ak yow te boo yeewoo da ngay mel ni ku nekkoon moom loolu signe la boo xam ni bu la dalee même boo ci amee doom doom ji du nga gis ci koo xam ne aussi bu tëddee guddi nii bu ye par exemple ci biir yeew nelaw gi yëpp ñu ngi ko yóbbu ci biir ndox lu ne mu koy gis. Mhm. ça veut ko kooku rabam mu ngi koy yóbbu. Mhm. nga gis koo xam ne ci biir nelaw gi yëpp ñu ngi koy yéegal fu kawe kawe kawe bu yeewoo yaram bi day diis a diis day mel ni ku doon liggéey effectivement mhm. parce que guddi gi yëpp it jël nañ ko dem yóbbu. ma ma yaakaaroon ne loolu ay nelaw yu xóot la rek. non non non xam nga nelaw yu xóot par exemple. tey ci biir nelaw nga gént jaan di la matt. maanaam ci biir nelaw yow yaa ngi tiit ba yeewu loolu mënta nekk nelaw yow lii la tiital am na signe bu mu lay signaler ci sa biir yaram c'est-à-dire que ñun ñoo sàggan dañuy dem nag bàyyi ba affaire bi parce que man damay faral di wax ni bëri na tey ñoo xam ne dañoo paralysé lu ñu géntoon la parce que wàllu paralysement du tëb rek dal la non non koy gént avant parce que bu fekkee da nga gént jaan ndaw di la dàq di la dàq ba mat la ji nga tànk boobu mu la mat mhm. bala ngay màgget par force di nga tëdd par force côté boobu day paralysé parce que diggante bi mu la màttee rek takk na say sidit mag ñi nag loolu bu leen mësaana def looloo tax suñu boroom sàkkal ñu sarax di fa wax ni sarax lu mu mënul fànk amul maanaam dara boo ko géntee da ngay xëy ni ah li ma gént te baaxul nga dem génne ci sarax boobu léegi sarax boobu nga gént nga génne moo lay fànkal musiba boobu waroon a ñëw ci yow léegi nag ñii gaynde di leen dàq te ma dama koy faral di wax man le képp ku tëdd guddi gént gaynde di la daal ça veut dire sa rab jëmmi boppam gaynde la même boo géntee rab côté boo ko géntee rek sa loolu la ça veut dire kon da ngay jàpp ni du rab yi ñoo weex dung mais rab yi ñoo bàyyi seen place ñoo dikk ci nit ñi war a ñu sonal ñu waaw léegi nag ginnaaw rab yi dañoo dëkk ak ñun sonal ñu nit naka lay def ba mucc ci ñoom du gaaw parce que yéen jigéen ñi li may faral di wax surtout yéen xam nga góor sax moom d'accord boo gisee Euh, nit ki bu fekkee dafay merte mënatul am maîtrise rek ça veut am na lu nekk ci yaramam parce que mooy li olof naan li yëngu toujours li ko yëngal moo ko ëpp doole voilà mhm. léegi nag li nekk ci sa biir yaram bu yëngoo dina tolloo yow niveau boo xam ne bu fekkee buggul gis jigéen boobu moom mhm. ça veut dire mooy góor gi nga xam ne dem na liggéey diggante bi yëpp mu ngi wax ak jëkkër jabaram téléphone mhm. mais bu ne salaamaaleykum buñ jàkkaarloowee day mel ni xol bi dañ koy kooku rab bi day manifester am góor ñoo xam ne tey boo ko tegee boo leen tegee loxo seen xol yi day tàng tàng tàng mara day te naa du ci ñoom parce que ku sañoon sa sonn teg la loxo. Mhm. ku sañoon boo wàccee sa jabar gàttandu la. Mhm. mais le la nga commencé xuloo am na góor ñoom lu ñàkk fayda la ñuy a. Mhm. war ngaa xam ne lii am na seen jabar. saa yu ñu waxtaanee rek xuloo. du ci ñoom. wala bu ñu waxtaanee téléphone la. bu ba ci nag bu seen jëkkër demee liggéey loo xalaat ñu ngay préparé ci lu baax waaye bu nee salaamaaleykum téléphone ba lay bëgg a dem vérifier parce que rab ba jaxase na bopp ba ba maare deytaani bu nee salaamaaleykum lu yëre bi takk lay vérifier même bu takkul sax rab bi dina ko jox benn affaire bu lëndëm mais est-ce que tamit du fiir jigéen rek d'habitude ne am ñoo xam ne dañoo fiir naturellement même bu fekkee du sax du rab mais ah, dañoo fiir mais loo gis dafa am naturel am lu ëpp ça veut dire xam nga jigéen. bu demee ba xalaat rek ay xalaat yu day waar yu doy waar mënatul maîtriser boppam. Mhm. ça veut dire lii ànd ak moom couple boobu day bëgg mu séparé wu. moo tax automatiquement day sol ci bopp jigéen bi loo xam benn xeetu ñaaw njort bu doy waar boo xam ne la koy indil boo xam ni mari de même ko jigéen ki loolu du ko neex. Mhm. parce que moom day xul ak jëkkëram ba mu xëy dem liggéey waa léegi yow nga xul ak sa jëkkër mu xëy dem liggéey nga toog ba ci yàgg naan man lu ma def loolu ndeysaan ça veut dire boo amee bopp war ngaa xam ni kon y a quelque chose kon. ça veut dire fiiraag yooyu dafa romb. kon rab lu existe la ça veut lu nekk ak ñun di dund ak ñun. léegi man damay faral di wax ni ay fee mos naa koo wax. jigéen boo xam ni surtout. booy faral di tëdd. def yaramu neen completement tëdd. kooku kenn mënu laa tàkkale hmm. benn. ñaareel wax naa leen ni ngeen summeeku ba set jàkkaarloo ko seetu mm-hmm. def sa yaramu neen mm-hmm. kooku kenn mënu laa tàggaleeg te surtout dafa am côté yi ñu amee doole am côté yi ñuy perte tuuti doole. sa mhm. veut dire rab loo gën a nekk ci sobe par exemple dugg ci douche. Mhm. surtout douche su lëndëm parce que man li may faral di wax. expiration mhm. bu fekkee yow mënoo ko defee lu dul ci douche ça veut dire kon am na yaa quelque chose. am ñoo xam ni musique tey bu ñu ko dégluwul ci douche dañu am jàmm. dégg nga gis ci ñoo xam ne par exemple seen téléphone bu ñu doon seetaan TikTok. bu alxuraan di kii romb na. parce que li ànd ak ñoom bëggul sax déglu xam nga ñaata nit a bëgg a julli te mënuñoo julli normal. te rab moo leen jàpp. Mhm. parce que bu dee rabu yéefar. Mhm. du la bàyyi nga jàmm yàlla. Mhm. moo tax am na ñoo xam ne nodd sax bu ñu ko déggee seen bopp metti léegi nit boo demee aussi. ba par exemple fu ñu jullee timis nga feebar. feebaru guddi. loolu mag ñi daan ko wax boo waxee dañ naan ko demal nga dem dindi jël kii rabam bi. am ci ñoo xam ne bu ñuy gis ngànt tey. di bëgg de dee. bi ñuul kukk. même rab boobu li def loolu ngànt mooy am possibilité tey doom ba du judd ñun tey da ngay gis jigéen ëmb mais ëmb bu xësa mat passé ñetti weer rab mënatu koo tuur déjà mais ci biir ñetti weer laajal ñi ñiy avorté yëpp balaa trois mois lay doon mais bu trois waay xasee kii moom jinne amatu ci doole. Mm-hmm. macha allah tabarkalla leeral yi am na solo bu baax a baax mais bu ñu gisee ñu léegi suñu chambre à coucher ni mu bindoo coiffeuse yi am seetu euh, armoire yi am am am am seetu est-ce que dina yomb si ñu ñu mën a def yanamu neen jàkkaarloo ak seetu suñu dressing yi bu ko amee day am tamit ay seetu. il faut ngeen indiwaat démb. Mm-hmm. ngeen teg tey mm-hmm. parce que ñun li ñu gën a solo lu mel noonu ci la bokk. mag ñi. bu daan dënnu la ñuy wax jëlal morso nga muur seetu yi waaw waaw léegi lu tax ñu muur loolu seetu yi parce que li ci mën a làqu dafa bëri te li mu mën a xëcc dafa bëri déjà da ngay gis nit ni la jinne du gis seetu loolu c'est faux am na ñoo xam ne bu ñu jaxawee di seetu dañuy jàkkaarloog seen rab ci biir seetu ak a boo xam ne dañuy taxaw di seetu gis loo xam ne ci ginnaaw seetu bi dañuy yuuxu mm-hmm. ça veut dire lu seetu bi nekk ci nekk man waxuma sax mën nga sa armoire mën na am seetu. sa coiffeuse mën na am seetu man awma problème boobu. mais nga summeeku jàkkaarloog seetu bi ça di dire yow il faut ñun dañuy fàtte ni. maanaam ba ci néeg bi ngay tëgg dama déglu benn mag mu baax. Euh, bu nekk Sénégal ñu koy wax Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy mhm. muy wax ni ba ci sa néeg. nee na bul foog ni yow rek yaa fa dëkk. ba ci sa néeg am na ñeneen ñu fa dëkk léegi nag yow imagine nga futtee ko ba seen jàkkaarlu moom mooy yaa ko ni yaa ko woowal sa woowal ci sa bopp mm-hmm. dafa am ay signes yu mag ñi daan def te duñ ko te ñu bàyyi ko léegi mm-hmm. léegi nag dafa am yeneen méthode yoo xam ni par exemple loolu da nga koy woowee liggéey da dama lay jox mm-hmm. quelques signes nit bu fekkee da ngay ñàkk tout le temps yow bu seddee yaa ngi ñàkk bu tàngee yaa ngi ñàkk kooku njibar daf la jàpp bu fekkee da ngay tëdd guddi aussi gént ñu jam la fi tal moom foo mën a dem ci kaw suuf demal di ji liggéey bu bon lañ la liggéey mhm. gis nga balu fital boobu ñu la jam nga yëg ni dugg na mhm. wallaahi liggéey boobu moo la yóbbu barzak boo ko déggee buy tàkk ba tey ba tey ba tey ci wàllum liggéey la fital moom fu mu boo ko gisee guddi rek liggéey la mhm. même ay armeel aussi it foo gisee nga ci biir yi armeel mooy liggéey la def ko ci biir yi armeel dafa am yenn liggéey li tax sa rawxaan di la ko wan ça veut dire mooy maintenant jugal jugal pour nga dem jugi ci sa bopp ça veut dire loolu war a mag boo géntee nga dem laaj mag mu lay jege ni ko ah maam. Mm-hmm. xam nga bu njëkk. Mm-hmm. koo gis dara danaan am maam. Mm-hmm. dara ba xëy ma daw ah maam lii laa gént. la doom kaay toogal. utal ma lii ak nga def lii mu jaar. loolu la ñëwee. c'est que ñu dégg gëmuñu gëmuñu lu bari dañuy bañ a gëm sax nii ah sooy gént sax di saraxe di gént di saraxe bu yàggee sax gént de day gën a bari wala wala xëy na mm. seytaane làqatu si du la bëgg a saraxeloo di la saraxeloo a chaque fois di la wan ay gént. <coughs> non sarax. du du du lu ne dañuy def sarax non xam nga man wax naa leen fii ni leen mm-hmm. lu gën a danger sarax amul mm-hmm. mais bu déggoo li ma la wax da dem ci mag mu xoolal la sa mm-hmm. sarax mi koo gis ci àdduna dafa am saraxu bopp koo gis ci àdduna mi koo gis ci àdduna jour biddéew ba nga tombeel bokkul ak sa moroom gis nga bis ba nga juddoo ñu ni diw juddu na biddéew ba mu tombeel loolu mooy sa biddéew bokkut ak biddéew yi ba ñun ñaar ñu war a mën a bokk sarax mënul ne c'est impossible tey misaal bi ma la ci jox lu gàtt la sa numéro téléphone tey su ma ci doon wootee su ma juumee ci keneen lay dem sarax noonu la loo ci juum rek boroom boo defal xam nga tey lëg daaru mbay mu la nekk ca Dakar boo defoon saraxam mu ñëwal la kon xam nga lu gën a danger sarax amul mhm. jinne tey boo koy woo saraxam ngay def woo ko mu ñëw kon lu gën a danger sarax amul mais dama ni la da ngay dem seeti kuul yàlla may nga ni ko ah lii laa gént mu xoolal la sarax ni la demal nga def sarax boobu sarax day fànk amul lu mu mënta fànk ci kaw suuf léegi nga da gis nit ku tëdd gént ci biir kii bi ndeysaan mu ngi mu ngi sonn xëxët maanaam daj lu métti ci gént bi xëy taal otom dem def soog mu moment boobu loolu mu gént loolu lañ ko doon mhm. mais ñun suñu problème ça veut dire waxuma Euh, comme sarax yi léegi jëkk jékki eh sarax lii baax na génn ñu bari umu nañ loolu moo leen tëj parce que tey euh, am na ci loo xam ne boo àndut ak boo ko defee yàqu. Mm-hmm. d'accord mais gis nañ tamit nga ñëw ci <coughs> euh, ñoo xam te ni dañ lay dañ lay tuurloo deret na rayal bëy bu ñuul rayal nag bu ñuul rayal xar bu ëmb rayal yooyu noonu. ku ko ciy def. Mm-hmm. doo tàggoog fitna ci àdduna mm-hmm. ku ko ciy def. doo tàggoo ak fitna. ci àdduna gis nga man mënuma d'accord li nga xam ni yaa ko gën nga koy neexal man mënuma ko d'accord bu dee tey par exemple pour génne jinne ci yow sànq rayuma mënuma ko kon man je préfère ma bàyyi faj dem di nelaw parce que tey képp ku ñu génne loo rey loolu maa xam bëy bu ñuul dèjà ma wax la ko ci exemple yaa tudd bëy bu ñuul pour yee ci nit ñi gis nga boo ko rayoon sa bunt sa buntu place benn nit dootu fa taxaw ni la jaay képp kuñ ko reyloo bu la fekkoon ngay liggéey ak niveau boo mën a nekk ci yalwaan ngay mujj mënoo ci dara dégg wax bi man daal bu dee gàtt bi bi ma ci bëgg man mooy bi ma dawal sama oto ba daral ba jënd ñëw rey sama waa kër eh, leen acca toggal <laughs> que xamal lu tax gis nga bépp mbir boo xam ne yaa ngi koy naan ko ñaari tànk yenn weex wala biir ba na xonk loolu yàlla taxatul de te lu yàlla def am ci ndam c'est impossible parce que tey segam yaa ngi ca topp naan ko biir bi na weex ak déjjën bi na sut bi ak bii na gàtt kon loolu yow am na leneen looy neexal loo xam ne lu dul loolu te la ngay neexal bu naanee deret bi day pare mu naanaat ah bien sûr mu ngi mel ni ma mar naan nga jox ma ndox ma bëgg a naanaat par force damay def lu ma defaatoon pour naanaat léegi da ngay gis rab day jàpp nit sonal ko muy daanu mhm. nga rayal ko 15 jours mu taxaw mhm. deret ba jeex xam nga bee ko doon daaneel mhm. bii mu téye ko yëpp mm. laaj la bu ëpp doole boobu mm. mu naanaat toogaat mar mu ne déedéet comme dama téye woon tànk yi wala dama jàppoon xol bi muy tàng di tàng mhm. tey xaaral ma téye cër yépp ba mu mel ni ku dee su ko defee ñu rayal mu lu ëpp doole loolu mhm. waaye léegi kañ ngay tàggoo moom te yaa ngi koy gën a may doole mhm. léegi est-ce que rab dina dina wér carrément parce que comme ñu naan <coughs> ñoom dañuy jël kii euh, am na ñoom dañuy jël congé rek c'est-à-dire da ngay ñëw si xaas mu faj la xam nga mais bu subaawee da ngay dem si mbóoj xam nga mu xam nga amaat leneen mu faj la mm. wala nga ñëw si xaas ren ñëw si moom déwén ñëw si moom tey ñëw si moom suba waa <laughs> mois six mois nga ñëwaat ginnaaw suba nga mujj découragé dem ci keneen xam nga bu bu lii wéree lii ñëwaat est-ce que dina wér yàlla bindul feebar bu mënta wér kaw mm. loolu ñi koy mooy weddi yàlla mm-hmm. ñaareel bi mooy yàlla yi bindu rab pour mu définitivement mu ànd ak nit ki exister képp ku rab àndal exister même bu neexee moment bii bala ngaa dee sol xam nga ku jikkoom justul neexul xaritool mhm. koo xam ne mu dikkalee tey su boobu mel rawatina nag jinne mhm. xam ne tey nu ko neex lay mel te mënoo ko ni nii ngay mel wala nee ngay mel ça veut dire kon kooku bu ànd ak yow xanaa moo yor sa dund mhm. tey dara gën a ngay dund ak rab mu wóor la ni moo lay contrôler biir yi nit mën la toog ay ca am na ñoo bu ñu duggee ci biir nag commencé lox am ñoo xam ne bu dara daanoo fii rek léegi ñu tiit mhm. am ñoo xam ne tey bu ñu tëddee mel ni dara taxu maanaam daf lay contrôler ba yow dootoo nekk bu nee la bul teg sa loxo sa jëkkër doo teg sa loxo sa jëkkër mhm. bu nee la tey par exemple sori ko nga mhm. sori ko kon yow looy dundati sa dund ban njëriñ la am ça veut dire nit ki bu demee ba xolam bu meree automatiquement feeñ ci kanam gi ba mënatu koo supporter kon kooku am na beneen degré boo xam ne mu ngi koy ëpp doole boo xam mënatu koo parce que kii nga bëgg ñu jënd guro may la ko ci farata si yàlla sunna mu teg la loxo sa xol di tàng ko xam nga ni nag li nekk ci yow kon bu budul rab lan la ça veut dire rab par force boo ko boo ko dindee ci nit ki dafa war a dem définitivement kee dem définitivement ñoom yëpp ñu nekk ci jàmm est-ce que du ñëwaat non non non non mhm. tey est-ce que am rab yu ñu parce que na koo xam ne ba mu juddoo mhm. am na koo xam ne ba mu juddoo la ko yaayam yóbbu si benn sëriñ mu sangat ko ndeysaan benn rab topp ko fu ñu ko yóbbu rab bi ñu di ko bàyyi ndax moo ko moo moo moo ko moom est-ce que façon rab yoo nga xam ne nii yàgg na si nit ki wala rab yoo xamante ni ay rabu cosaan la say say maama amoon xàmb samp xàmb yi say peut-être seen parents yi euh, yéen tamit defoon nañu samp nañu yéen génération ñun suñu génération ñu dara ñu bañ a samp rab yi xam nga topp leen topp seen i njaboot est-ce que genre rab yooyu nga xam ne nii cosaan la ci ci ci ci famille est-ce que rab yooyu dina wér bon rabu cosaan dama la koy xaymaal ci tuur. mooy tuur waaw mooy tuur waaw dëgg sa maam parce que bu dee rab dañ naan tuur bu dee jinne ñu ni jalang mhm. ñaari wuute mhm. dee jinne jalang la. Mhm. bu dee rab tuur la. mu ni damay laaj soow. dama koy tuural. jalang ni la damay laaj deret ak sàngara. muy ñaari mbir yu wuute. léegi dama fa doon jëm ak yow gis nga tey sa porte. bu la nit sonalee ci sa bunt yor caabi nooy def da ngay changer serrure rek yor sa beneen caabi bu ñëwee dugal dootul tijjeeku mhm. rab noonu la d'ailleurs ba nga nee mu sangu ba nga nee mu nekk xale sangu kooku tàkkaliwu ko rek sangu dindiwul rab ci nit mhm. pour nga ñëw xaas jox la saafara dama sangu mu deñ mhm. ah loolu moom sëriñ bi ne ko da lay nax rek xaas jox la téere na takk mu deñ au contraire damaa tëjaat jinne bi ci sa yaram parce que li nekk ci sa biir yaram di dund nga sangoo loo xam ni mu ngi bëgg génn mënatul génn au contraire yaa ko gën a sonal nga takk loo xam ne mu ngi xabtalu parce que mu ngi bëgg yoon bu mu génnee amul fu mu jaar au contraire yaa ko gën a sonal. Mm-hmm. loolu mooy rab rab da ngay da nga koy dindi ci nit ki définitivement. waaw léegi nu ñuy dindee rab ci nit bokk. ma sama yëfi bopp la. ah déet moom kay nag loolu fànn wax ñu ko parce bu dee moom ñun lu ñu xam bu dee rab moom sang sangu bi du ko dindi. takk takk bi ko dindi. exemple bi waaw exemple rek mm-hmm. laa lay jox bi gën a bi gën a bi gën a yomb. Mm-hmm. par exemple li nekk ci sa biir yaram di dund. maanaam ci sa biir yaram la toog di dund. léegi war a génn ci sa biir yaram te yaram karaw yi ngay gis tey bu dee nit ki dañ dafa umu dañu karaw yi la parce que cat loolu lay jàppee nit parce que après naa la dimbali tuuti ci cat nga xam léegi tey li nekk ci sama biir yaram di dund di noyyi ma jël mbir moo xam ne sangoo naa ko noyyi ngi mënatu koo def maanaam sonn na kooku nit ki nga gën a sonal ñaata nit a sangoo saafara gën a sonn bu dee lu ñu doon ut mu gën a dëgër parce que problème bi mooy rab baa ngi métti dund lu métti ci biir yaramam mënatul yu am yoon. ça veut dire tey plateau bii ñu dugg dañoo dugg ci yoon bi ñëw toog. ci porte bi lañ jaar. waaw rab da xool bunt bi muy jaaroon dugg foo ngay jaaralal kenn. te seen digg ginnaaw ñi seen tànk ñii lii ñii lii loolu mooy problème waaw loolu xam naa euh, euh, ñun ñun suñu génération ñun. mën naa ne bu rab amee dinañu sonal parce que pour ñu mën a comprendre lii mën ko gëm loolu mooy nekk loolu mooy nekk problème bi yéen a ko gën a gëm déet waaye pour ñu <laughs> comprendre ko day parce que xam nga mm. ñun bu ñu xamul yoon bu muy jaar dugg donc duñu mën a xam faj la loolu ñu ni baatin ah, ok euh, mineur dañ ni baatin mm-hmm. bañ ni baatin mooy li nëmb li nëmb na mënut a feeñ mm-hmm. xool ko ci almet mm-hmm. brin yaa ngi ci biir te pourtant pour nga pourtant gis nga xott bi ni mu rafetee mm. mais pour nga jëfandikoo al foog nga génne brin bi ci biir taal mu tàkk mm. man loolu mooy sirru bi mm. parce que baatin dafa nëbbu léegi nëbbu boobu gis nga bis bu feeñoon mm-hmm. wallahi dootoo ko faj mu sotti mais li mu nekk baatin moo tax yàlla may la ko nit ki ni tëll nga xool gis ni tey par exemple rab baa ci biir bi nga gis nga laal biir bi automatiquement mu commencé di yuuxu nga xool fan la jaaroon ci moom ñaata nit a naan la sama digg ginnaaw gi daa mel da am lu ci nekk parce que jinne fay jaar par exemple exemple bi gën a tuuti ñii naa la sama tànk yi day ruux parce que rab bu fa la jaar léegi nag yow da ngay xool benn putux lool bu ndaw lay doon nga xam ne ah kii de fii la doxoon jaar comme bi nga dugg ci télé bi mhm. nga jaaree nga ne ko ay a ca génnaatal c'est simple waa waa léegi cat cat moom sonal sonal nañu ñun ñi nga xamante ni ñu ngi si réseaux sociaux yi ñu ngi si ñun ñooy wanewu ñooy exposé suñu suñu bopp waaw te dégg naa tamit nit ñi niñ lay bëggee mm-hmm. di la fans dégg naa tamit jinne yi tamit noonu lañ lay bëggee di la fan mm-hmm. léegi cat cat boobu ñun naka lañu mën a def ba mucc si yomb na mooy cat dañuy faral di wax ni xam nga cat ñaar la <laughs> dafa catu bët am catu làmmiñ kii da ngay romb mu xool mm-hmm. téye la muy téye coxolam kii nga romb mu wax diw nangam kee xool ni ke fekk est-ce que xam nga ni. catu làmmeñ moo xew a tane tuuti sax. mais catu bët da lay tëral feebar. Mm-hmm. moo tax olof di wax ni cat bu reyul semmal àdduna yi nit a ngi war a jóg ba bët set. Mm-hmm. nga ñu àttan seen yaram. Mm-hmm. di foo leen fekk ñu ngi fudd di boobali rek. fekk cat ak leen di bëgg a rey. ça veut dire cat bi day dem ba day fees dell dell ci sa yaram mooy nit ki nga xam mënut a toog 15 minutes 15 minutes te boobaliwul wala fudduwul. yax yi di metti rek parce que ça veut kooku catu làmmiñ moo ko jàpp parce que catu làmmiñ bu dalee xam nga tey mu ngi mel ni euh, boo doon romb bu ma yuuxoo sa tur woo la jàpp la mm-hmm. catu làmmiñ moo tax mu bon catu bët da lay tëral feebar mm-hmm. ça veut léegi nag cat pour nit mu euh, mucc ci parce que tey euh, boo déggee ñun ni la sarax lu am importance la ça veut ku la ni da lay tàggaleeg cat vie ci sëriñ ba ci maanaam keneen ak keneen mm-hmm. daf lay nax mais cat la Serigne Sambay di wax rek garab la doo nangu nag mu sëkk fu mu sëkkee da ngay goraat branche yi ba lépp jeexaat mu tranquille boo demee ba branche yu kiiwaat nga goraat loolu mooy cat kon bokk la garab rab mën na dañ bien sûr liggéey liggéey liggéey aussi mën nañ koo yàq mais cat moom toujours day kii waaw xam nga liggéey dafa bëri façon man liggéey yu ma gis nii tey xam nga tey liggéey dafa am fas dafa ñoo xam ni <coughs> te seeni i tur ñu ngi leen suul ci ay armeel par exemple. Mm-hmm. armeel bu ñu ko fa suulee mooy nit ki dañoo tëdd. Mm-hmm. tey mas naa ko wax mas naa cee def benn révélation mm-hmm. boo xam ni ci jamono yi armeel Pikine la ca xewoon. ça veut nga gis nii ay nit yu ñu tëral jullee leen ba pare te deewaguñu. nga gis fa ay sitin jigéen nga gis fa ay par exemple yëre jitluwaay jigéen nga gis fa ay baawu jigéen mhm. te jigéen ñooñu nga xam nga lu leen daal actuellement mhm. maa leen dee caali boo gisee mooy wax ni li gën a danger te jigéen ñi day koy def nit ñëw rek ne la abal ma sa baa mhm. nga jël jox ab abalante yére abalante yére surtout yére boo sol ñàkk bi nekk ci nga jox ko nit lum la pour mu xabtal la léegi nga génn dem defi musiba lu ko gën a yombam léegi même loolu pourtant mineur gis nga toujours dama lay dimbali ci sa rawxaan moo tax toujours loo gént bul ko xeeb yaa ngi tudd guddi gént par exemple di reetaan rek mm-hmm. dawul xool yi te xam ne yaa ngi ci musiba de mm-hmm. gént mbégte ci gént mhm. kooku moom lu ko gën a bon amul ci kaw suuf ndax di nga jooy ba yéemu ci yàlla mhm. léegi nag boo géntee naqar ça veut dire war na leen ni par exemple am na sarax bu mineur mi defoon kat mhm. léegi mbégte judd na ci moom moo tax wala nga gént sañse <coughs> ba mu rafet ah tiital ci sa bopp ndax la nga sañse dana la rafle loo ça veut dire loolu ay signe la léegi bu dee mag ñi ñu ne la ah comme gént nga di reetaan ci biir gént gi mbégte sa bu tilimee loo koy fóotee saabu ñu ni la génneel saabu sarax saabu boobu boo ko génnee dana la dimbali ci la tilimoon da koy raxas xoolal lii ni mu simple léegi yow doo génne saabu bi de da nga ne ah dem nag ba dal ca pax ba léegi nag saabu dootu la setal mhm. pour nga génn ca pax ba jafe lii mooy lii daal jamono ji mooy tàyyel mhm. kon nit ñi nañu yeewu ci mhm. euh, li ñu mën a def nag pour daal di euh, jóge ci li nga xamante ne ni moom mooy jafe-jafe yi liggéey yeeg cat yeeg musiba balaa yi nga xamante ne ni njabar euh, yu bari yi iñaanante bi soxorante bi loolu yëpp nan daal la mën nañu a def exemple bi ma la jox ndax temps baa ngi jeex bi ma la ñu ko jox mhm. miir bi boo ko fekkoon mu taxaw nga dem mbëkk ko kuy gaañu xanaa yow. mi ko bëgg. waaw waaw nit da aar sa bopp. lu jiitu. ñaareel bi mooy it di faral di saxoo njàpp. loolu lu ko gën amul. gis nga fépp gis nga sunu borom. lépp lu la sant rek boo ko defee sa jëriñ la gis nga booy faral di saxoo njàpp fépp fuy tooy ci njàpp fa la ngelaw seytaane di jaar. mais boo jàpp mun laa dugg. moom bu bëtee. moom day arriéraat. yow yaa ngi bëgg a rey te gisoo. léegi nag boo saxawoon jàpp foofu yëpp bu la fa jàppee mooy mu mm-hmm. ngi mel ni nit ki de man dafay faral di wax wax naa ko lu bari bëri na xam ne ñu ngi dee di dox nii. Mm-hmm. ay ndeysaan. parce que li ñuy li ñuy jàmbat ak li ñuy doxaale mara di téeméeri ngelaw ci seen yaram ñoom. Mm-hmm. mu ngi mel ni ku ibbi sa buntu kër rek ni aja na ñëpp ñëw. nit du bàyyi sa bopp noonu loolu c'est dangereux. loolu mag ñi dañ ko daan faral di def boo xoolee bu ñëkk chaque aljuma ngi daan gis mag ñi di dëbb saraxu nàkk di ko génne sarax. ci buntu kër. xale yi am am am am. loolu yaa ngi aar ba aar sa njaboot dañ naan da ngay wootal jinne wala yooyu. ay woote. ma ne léegi boo koy def dañ ngay wootal jinne wala xëy na am na sëriñ bu lay. saraxeloo wala. non non non non loolu dafa am sarax yoo xam ne c'est naturel. Mm-hmm. tey par exemple euh, xoolal nga togg sa ñam. Mm-hmm. defar ko ba mu rafet nga gis ouvrier yi liggéey ba ñakk nga dem ne leen am leen ngir yàlla mhm. xam nga saraf bi nga def ngir yàlla yàlla da lay fay waaye bi nga def ngir jinne kooku man sama yónneeku ci waxuma boobu de mhm. tey fekk nit ku sonn tey nga jox ko mu lekk mhm. jox ko wàllu sedd guy mu naan waaye yow loolu xam nga fi mu toll ci yàlla léegi looloo waral bu la sëriñ ba di liggéey rawaxaan bi ni koy yow xanaa da a dof xanaa gisoo kii li muy def ci lu baax mhm. moo tax ñu naan am na ci ñoo xam ne boo leen sànnee dara mu mel ni teg si mhm. boo ko sànnee bu bondee sa kaw la jëmaat mhm. léegi loolu def lu baax la koy waaw ñu waxtu bi ñu cërale woon jeex na lool lool lool j'espère que daañu amaat yeneen occasion dalal la <coughs> bien vrai ko jot gi yombul émission bi daw naa ci lu lu yàgg. pour mu teg ci waaw. <laughs> waaw xam naa ndeysaan macha allah song bi ndeysaan bi la maladie song ndeysaan ak ñàkk doon noppalu bi loolu yëpp. nga hmm. tàggatoo rek ak ñi nga xam te ni ñu ngi lay seetaan. waaw jërëjëf mi maa ngi lay sant vraiment. di kontaan ci émission bi di sant. Euh, sama waa ji. macha allah Mbodj. Hmm. moom ñëw na ba Sénégal. Hmm. nit ku baax. di sant Cheikh. di gërëm mbokki Sénégal gi yëpp di sant Soxna di kontaan macha allah di la wax jërëjëf. Mm-hmm. jërëjëf ñun tamit euh, ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom nag ba ngeen gisee ñu indi ko fii euh, euh, man yaakaar naa ñaare bi mooy ñaareel yoon ma fiy dalal kuy kuy faj bariwuma ñu may yëngatu si dalal ñuy faj waaye bu ñu ko fi dalalee dafa ñëw si réew mi nekk njëriñ pour askan wi ñi nga xam te ne yëpp ñu ngi yaakaar ñu am yaakaar am ñoo xam ne desaanam feebar nañu sonn nañu fëgg nañu fu ne donc ñu am yaakaar rek euh, ni bu ñu ñëwee si moom ñu am tan looloo tax ñu indiko fii pour waa réew mi xam ne rek ni mi ngi fi Euh, lijjanti rek fi nga xamante ci nii euh, mi ngi fa mën a dem euh, si ñoom si moom yaakaar naa ne képp ku ko xool si réseau mi mu nekk si TikTok am wala si Facebook am wala si YouTube si si émission bi sax di jàll buñ ko xoolee si YouTube bi daañu mën a am lépp li nga xamante ni rek moom moo di adresse ak fu fu ñu mun a jokkante ak moom di jaajëfal bu baax di nuyu nag soxnaam di sumbulu bàccali di ko jaar di ko jaale yaayam ci bu baax di ko di ko jaale waa koñ ba yëpp di fa jaaraale rek jéggi benn kër rek Euh, dugg suñu euh, suñu kër daal di nuyu sama sama turando Ndeye Fatou Diaw mineur di nuyu xale yi di nuyu waa kër ga yëpp euh, di leen di jox nag dig daje ba beneen yoon incha allah.